alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala sayyidina muhammad almabuusi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla di julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa di leen nayu kenn ku ne ci turam ak santam di jiital ci nuyu bi nag jëmm ju tedd ji nga xam ne moo wàcc fii ci sag mbaaw muy al imaam alxaaji aliyun sàll bi ñépp xam ci liggéeyal lislaam ñu gën koo ràññee ci Sud FM ak imaam gay moomu nga xam ne moo ne ci ndeyjooram ak al oustaz Seck ñu yóbbaale mbooleem azatis yi ak mbooleem imaam yi di jagleel na yow bu baax nag al imaam oustaz Ousmane Ndiaye suñu turandoo di directeur daara ji ñu tuddee al oustaz Alioune Sall dina yu tamit mbooleem parents d'élèves yi muy ñu góor muy ñu jigéen dina nuyu mbooleem élèves yi muy ñu góor muy ñu jigéen fas yéene tënk lool nag sunu kàddu ndax bëgg a jox oustaz Alioune Sall mu am message yi mu jàllale sun boroom dafa dogal oustaz Ndiaye ñëw sama kër ànd ak ñaar ci ay soxna ñu ne ma suñu yéene mooy nga bokk ci ñuñ tuddee bés bi kon waroon naa fee njëkk waaye waru moon a ñëw léegi waaye kii ma dendal ci sama càmmooy muy imaam Abdul Ahad Daraame di jiite jumaa ji ne ci kër Sëñ gi kër Mbay Faal xam na moom lan moo ñu tënk suba ba léegi ndax ñoo àndoon su boroom dafa dogal ma yor kàddug mbooleem sëriñu daara yi ci commune de Mbao moom mi mu yor lépp luy organisation ci commune de Mbao ñu am ci bés bi juróom-ñaari conférence bii juróom-ñetteel la te benn bu ci nekk ñu jox ñu fa cër te bëgg ñoo neenal kenn dix heures lañ génnee sunu kër di tourner ba bésu tey bii ba heure bi ñu ne waaye nag fii lañu ñu mujjee si kon loola moo sabab ñu ñëw heure bii waaye lépp defe naa sotti ci ak def ci la su ko defee nag ci biir loolu maa ngi seedeel mbooleem ñi fi toog ne oustaz Ousmane Ndiaye mii oustaz Alioune Sall sa sët boobu bi muy sos daara ji Kër Mbay Faal fa la ma fekk maa ko mag ca dëkk ba waaye moo ma mag ci at ubbi woon benn magasin teg fa ay taabul dagg daaj ak ay ndongo yu tuuti di fa xëy di fa gont ma di ko fa romb saa su nekk ñu fas faslante kóllëre yàlla dogal mu jóge foofa am feneen fu mu tuxu jugee foofa am feneen fu mu tuxu wax na ko ba tey mu mat fukki at waaye may seedeel mbooloo mi ne man de bépp faranku arab bu nekk kër mbay faal man xam naa ko ndax maay porte parole mbooleem ñiy jàngale ci alquran ak làkkum arab tënku ci association waaye ci biir loolu ñuy seedeel mbooloo mi ne sama doom man bi may tànn ban franco arab laa koy yóbbu damaa ñëw ba ci moom ma ne ko wër naa ñépp waaye li ma bëgg yaa ma ci doy ma jël ko jox ko ñaari at la fa def wala ñetti at xale bi bi mu defee examen entrée bokk na ci ñi génn dofis fii ci école am loola nag yaakaar la boo xam ne bi ma amoon tasul te ba fii may wax ak yéen maa ngi am yéene andil ko ña fa des ci kàttanu yàlla incha allah ak ku ma mën a andi nag ndax li ko waral mooy jox na cër liggéey bi fonk na ko te xam na ko itam rëgër bi muy doxee bariwul ñu koy doxee ci wàllum jàngale kon moo tax ma wax ne insha allahu taala ilal amam xawma kañ lay doon waaye école oustaz Alioune Sall bii moom ca kanam la jëm ndax la ko sos ak ni muy doxee foofu laa ko teg daara ji ay taabal dagg daaj rek la woon tey bu demee ba nekk immeuble dem ba ànd ak internat xam ngeen ne mi ngi dox mi ngi avancé ku fekke woon démb bu fekkee tey da nga xam ne école bii taxawul su ko defee kon nag ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla matal loolu suñu yaakaar itam yàlla bu mu tas maa ngi wax ci kàddu képp kuy jàngale alquran ne yow royukaay nga ñu ngi ci sa gannaaw itam te di la ñaanal borom bi subhaanahu wa taala yal na yàlla dëgëral la bu baax kon waa sag mbaaw laay wax ne am ngeen saas bu rëy kii bu ko waa sag mbaaw téyewut dañ koy utalaat local kër mbay faal ne ko ñëwal ñibbisil ndax yow fii ñoo la xam waaye bu ngeen ko téyee nag ñu bàyyi leen ak moom te di ñëw bokk kook yéen kon li may laaj mooy da ngeen ko téye wala du ngeen téye kon li may laaj mooy dangeen ko téye wala du ngeen téye tontaan leen ci laaj bi da ngeen téye wala du ngeen téye te jàpp naa ne nag danañ téye incha allah ndax ñim àndal ñëw sama kër fii lañ dëkk am na invitation yu ñëw fii ñoo xam ne oustaz Ndiaye xamut leen ñoom soxna yi ñoo dox cité bi yëpp wër fii yëpp invité leen ci conférence bi kon ñoom ñu ngi liggéey liggéey bu rëy ci daara oustaz Alioune Sall kon nag oustaz Alioune Sall yow sunu xarit nga sunu soppee nga sunu wëlëre nga danaa la fàttali loo fàtte keroog ba ma njëkkee ñëw sa kër ca jëppal ca kër soxna njéeme fa laa ko fekk xam na li may wax ma ñëw ne salaamaaleykum mu ne ma ñaati soxna nga am ma ne ko benn mu ne maam na oma affaire ak borom benn jabar toogal ne de ba ma soxla la ma ne waaw oustaz moom man dafa may wàññi wala lu xew ma jëfee ndigal dem toog ca kannaaw mu ne ca lam nekk ne la lam nekk ne ca nekk ba doyal daal di ne gees ana borom benn jabar bi ñëwal léegi ma ne ko maa ngi nii mu ne kaay ma doog a agsi foofu la njëkk a jaar ak man yàlla dogal selil bi mu taxawaloon Kër Mbay Fall Ali Imran man mii maa nekkoon coordinateur ba ànd ko ak oustaz Babacar Ndiaye keroog bi ñu ko njëkkee dalal Kër Mbay faal ñun ñi ñoo ko organisé woon sun boroom dogal itam dalal na ma rajo Sud FM ay at yu bare bare bare wax dëgg yàlla macha allah kon sunu wëlëre la xam nañ ko bu baax boroom xam-xama ngoog nit ku baax a ngoog kon daara ji am na kilifa kon nag ñu ngi lay dalal di sa taggal ñëpp di leen gërëm di leen sant fi may daanelee kàddu yi nag mooy dama amoon yéene su ma ñëwee fii lu mu néew néew néew ma def sama participation bu dul sama participation loola mooy lan mooy ñu dajale addi ju takk bu doon lool jox ko imaam Ousmane njaay mu fay ci baas fay ci sées fay si rajo yewi ci maamam waaye nag loola imaam mii di oustaz Alioune Sall moom laa koy bàyyee te xam naa ne suñ ko ko bàyyee am naa yaakaar ne euh, tool bi du booy kon nag ma jëmale foofu sama kàddu di leen gërëm di leen sant di wax ne école bi am na CP ba entrée en sixième gannaaw loolu tamit am na defe naa su ma juumul sixième collège te cinquième la jëm ba quatrième kon nañ ko ñaanal yàlla école bi du buy taxaw école buy dem la escalier la na ñëpp ànd ak moom dem. may leen ma loxo ci loolu wasalaamaaleykum wa rahmatullah. wa rahmatulah wa rahmatulah wa barakaatu jërë ngeen jëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf.